état bu maanaam CEDEAO jox na dëgg kuréel yi nga xam ne ñooy xeex ak yelleefu doomu aadama ndax nag cour de justice bu CEDEAO daal nay sant état bu Sénégal na ko nag ñetti weer laa la may ngir nag nga daal di fii jële li nga xam ne mooy arrêté Ousmane Ngom bi ndax nag dafay salfaañe di violer li nga xam ne mooy àq ak yelleefu askan wi ñi nga xam ne nag ñooy waa Sud Quotidien ñoom daal li ñu xëy gis mooy nag waa CEDEAO ñoo ngi ërtal bu a xam ne mooy Macky Sall ginnaaw parrainage bi nga xam ne waa CEDEAO waxoon nañ ne Sénégal nañu fi jëlee li nga xam ne mooy arrêté Ousmane Ngom bi nag ñoo ngi xool ba xam nag bii moom état bu Sénégal maanaam dina ko jëfe wala nag du ko jëfee yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa Mayoro Faye bu PDS nee na nag jamono ji jot na sëkk jot na sëkk Sénégal daal di respecté li nga xam ne mooy CEDEAO maanaam jot na Sénégal respecté CEDEAO nag wala sax Sénégal daal di respecté signature bi nga xam ne signé na ko ndax Sénégal moo signé ay traités internationaux et convention Moussa Sarr bu LD nee na Sénégal dafa war a respecté li nga xam ne mooy démocratie waaye tamit Sénégal dafa war a respecté li nga xam ne mooy liberté individuelle la yéen a kaay gi di Vox Populi ñu koy fekk fa Moustapha Diaw membre la ci bureau politique bu parti socialiste dafa mer ba maara détaal yi moom Moustapha Diaw ndax nag nee na fukki at ak ñaar ñi nii bulletin bu parti socialiste kenn gisu ko ci urne yi trop c'est trop lu ëpp nag tuuro daan wax ne li nga xam ne mooy élection législative yi ñu dëg ma la dañoo jàppe ñi nga xam ne ñooy waa parti socialiste ndax nag xoolal ki nga xam ne mooy Aminata Mbengue Ndiaye mi seen secrétaire général fan ci diwaanu Louga Moustapha Diop moo def lu ni mel su dee nag Abdoulaye Wilane ca diiwaanu Kaffrine dañu ko jàppee jël lépp jox ko Abdoulaye Sow Serigne Mbaye Thiam sax dañu koo jàppee yéene kaay gi di Rewmi Quotidien ñi nga xam ne ñooy waa CNRA ñoom nag daan nañuy dagg signalu Sen TV ak signalu Zik FM ndax nag ñi nga xam ne ñooy waa CNRA nee nañu li nga xam ne ay mise en demeure la woon ñu jox ko nag groupe des médias respecté wuñu ko ndax nag ñi nga xam ne ñooy waa CNRA dañoo waxoon ne Ahmed Aïdara na bàyyi revue de presse bi nga xam ne moom lay def loolee nag groupe des médias lànk ba tëdd sa naaj laaj wa moo tax démb sénéral na yeneen dogal daal di dagg xam ne nag mooy seenub signal tax na nag Bougane Gueye Dany ak waa D-Média mer ba maara day tali nee na ñu nag Babacar Diagne li nga xamante ni daf na ko tegu ko fenn du dëgg du yoon ak jaay doole la amul lenn loo xam ne jamono ji nag mën nañu koo reprocher ki nga xam ne mooy Ahmed Aïdara Bougane Gueye Dany nee na xanaa Ahmed Aïdara mënuñu koo toppee maire gi mu doon mi nga xam ne nag moom la la yéene kaay gi ba tey moom Bougane Gueye Dany ci la turbina nee ne moo jiite Soleil moom Bougane Gueye Dany nee na Racine Talla la ba pare ma ngi nii jiite RTS te day politique Thierno Amadou Sy RTS moom tim dafay politique Thierno Birahim Fall moom day politique journaliste la APS la nekk yéene kaay gi de la Soleil xëy di ñu xibaar naan ñu Japon may nañu Sénégal lu toll si ñetti téeméeri junni ci ay dose vaccin AstraZeneca niki démb la ministre bi ñu dénk wàllu wér gi yaram gi di Abdoulaye Diouf Sarr daal di nag recevoir ambassadeur bu Japon bi nekk Sénégal ngir nag jël li nga xam vaccin bii di L'As nee na bu Kolda juróom-ñaari fan ci weeru avril danañu leen jox li nga xam ne nag mooy seen scanner bi dana leen ko livré ministre bi ñu dénk wàllu wér gi yaram gi niki démb la ko annoncé journal bi di Libération xëy di ñu ñu René Capé Bassène mi nga xam ne moom la ñu jox xar baaraamu tuuma ne moo planifié rey gi nga xam ne moo amoon ci atum 2018 ci àllub Casamance ba ne ma boo faa bayota René Capé Bassène ca tribunal ba ba tëdd sa naaj wa nee dara te bu dee nag tëñ nañ ko neleen laar leer na moom dafay xaroo yéen kaay gi di réew mi quotidien ci xalima ak Assane Samba daan nay wax ci lu jëm ci wàllum délinquance sexuelle wàllum viol gi criminalisé nañ ko waaye nag téewul tey ji la wàllo gën a aaye yéen kaay gi di la sa nee na sa diwaanu Sédhiou dafa am benn professeur EPS boo xam ne dañu koo joxar bi baaraamu tuuma di ko tuumaal ne moom dafa violé benn xale bu jigéen boo xam ne mineur la élève boobee sax dafa mujjee nag daal di ëmb wan lora journal bi di réew mi quotidien nee na professeur EPS boobu sa Sédhiou nag bii bu njëkk bi de bi mooy ñeenteelu yoon bu professeur bi yegg cib élève ba mu wann lor daal di ëmb am na benn jàngalekat boo xam ne nag ba ñuy àtte professeur bi daan nay joxe ay témoignage nee na professeur bi daal yàgg naa def lu ni mel ndax nag gën gaa gàtt am na ñetti élève yoo xam ne